mais la classe politique dans tout ça et l'opposition dans tout ça parce que peut-être duñu toog 17 ans le président de la République Macky Sall muy décidé euh, justement pousse élection Et et élection présidentielle nous représenter représenté Sénégal opposition Mais ma xam pas mi Pastef ak yenn parti qui est en train de se Askan avec ak yenn mouvement yu qui est ay mouvement ak yooyu ñu ngi xeex parce que comprendre lañ loolu que nous nga xam Nous lañ comprendre di

parce que xam nañu fi président Macky Sall bëgg jëm ñooñu biir na ma ne comprendre nañu les enjeux de l'heure té ñi ngi taxaw temm di ci xex ñeneen ñi nga xamné comprendre nañ lenen wala japp nañ né baré yi koy joxe nguur wala lenen ak lenen dañ leen koy nangul. faites allusion à qui. à personne à képp ko xamné gis na ci bopam rek. alors euh, El Malik, euh, bon on repousse élection moom vraiment Sénégal peut-être euh, euh, on va dinañ ci waxtaanaat. je ah, pense que dinañ ci waxtaanaat mais je le souhaite pas hein. Mais ne soyez pas surpris. Que nous poussons Oui. Parce que vous, avez l'impression que nous travaillons peut-être qui souffre président de la République à Non, non, non. parrainage de quand nous avons commencé Le 20. Le 28. Avec la loi ça, je pense que nous avons encore fin septembre. Nous avons un candidat. Ça veut dire quoi ça est-ce que mës nañ ko gis ci réew. ça veut dire pour. nga ñëw changer mode de parrainage bi def treize députés pour que nit ku ne mën nga tëdd naraw ba décembre nga def sa déclaration candidature. Mhm. yooyu yëpp nañ ko calculer bàyyi ko xel lan moo lalu ci suuf. pour yow pousse la. Ah, on verra. alors euh, nous avons participation inclusive Nous avons beaucoup ci ci élection d'ailleurs il y a eu le le le, le dialogue national dialogue président de la République tendre la main aux forces vives de de la nation peut-être qu'il y a un ci de dialogue Bogu. Khalifa Babakarsal Sall Karim Maïsawad, peut-être mondes dialogués pour mën a beaucoup élection yi pourquoi Lolo n'a pas kam moo leen ko nangulul. waa yéen waa yeewi askan wi déjà génne nañ leen ci yeewi askan wi waa ñoom Khalifa Ababacar Sall PDS n'en parlons pas parce que peut-être ñoom dès le début. la ñu la waane di wax ci turu conférence des leaders yeewi askan wi parce que bokkuma ci. la Ousmane waxoon euh, Bart ne ko bokkuloo ci leader yi mën nañ ma ko tamit donc li ma mën a wax mooy ñun dañoo. amoon benn mbébét te moom lañu am ba léegi te président Ousmane Sonko gëm ko yàgg ko wax ci élection 2019 la ko njëkkee woon xam nga nit ñi dañu gaaw a fàtte moo tax ñu bëgg di def ay ci la waxoon opposition bi nañu fexe ba xeex ba Khalifa bokk Karim bokk ñu imposer un ministère wala benn autorité bu neutre mu organiser élection yi ñu doog cee dem ñu xeex parenage bi mhm. ca groupe bañ ko doon waxtaanee ñoom leader yëpp nek ci ñi ah, ci groupe mailing président Sonko envoyé mail wax ko né buñu défé li ak li nangu ko ñu boycotter ñu ñëpp bayé ko élection mom kessé qu'est-ce qui s'est passé ñu jël mail bi tas ko ci mbedd taxul mu bayé dé ñi dem parrainage parce que xeyna na ñoom jàppoon na né ñun duñ am parrainage etc on a eu le meilleur parrainage ñu jall nek 5 candidats dont 4 entre guillemets de l'opposition ndax tey euh, histoire wane na ne benn rek moo ci nekkoon opposition ndekete ci cinq candidats yi <laughs> mais oui. yaa ngi tooñ de. mais loolu looy dëgg ci ñett ñeneen ñi ana ñu ñu ngi opposition wala ñu ngi pouvoir. <laughs> donc loolu dafa am na ñu dellu opposition. déedéet <laughs> xam moo ci dellu opposition ma dikkee bàyyi na. Euh, Idrissa Seck foo koy def moom ah, le chef de l' opposition. ah d' accord ba tey li am solo mooy boobu waxoon na leen ne ñun carte lañ bu ñu renoncé ne du ñu bokk. Macky sera seul avec ses élections. Il sera obligé d'organiser des élections. Mhm. gars yi bañ loolu mooy dëgg. mu continuer mais bi ñu jàllee dafa wax Khalifa wax Karim su ngeen yaakaaree ne eh, dinañ leen yombalal seen bokkaat ak yooyu da ngeen di taxaw xeex gis nga buñ taxawee xeex. Mhm. fexe ba le local yi gagné législative yi jël suñu assemblée changer loi bi parce que lépp politique la notion d'électeur bi nga ne article L L 29 L 30 L 57. Mhm. ngir gàllankoor. ay ay candidats. bu dañuy am latitude du voté modifier ko code électoral bi et pourtant président Ousmane Sonko amul dara lu ko réfléchir comme ci touche yi man ma continuer sama tranquille d'accord ci ñu intercoalition charte yeew d'abord mettre en place charte mais loolu la ñu wax moo tax su ma déggee ñuy génn naan bañ ba ñu bloqué Khalifa xeexaluñ ba ñu bloqué Ousmane Sonko dafa xeex ba ay militants am commencé woon ko mere ndax dafa bàyyi boppam bàyyi parteem di xeexal Khalifa di xeexal Barth di xeexal Karim. loolu yëpp ci teg nañ ci bët. loolu loolu attends ma terminer foofu dafa am solo. allez-y. dem naa ba dégg ne sax. que dañ leen a iñaane bokk bi ñu war a bokk. justement foofu laa doon ñëw parce que jàpp nañ ne que dañoo yàq yéen da ngeen yaakaaroon ne que euh, Khalifa Ababacar Sall du bokk élection bi mu demee ba ngeen gis ne que effectivement mën na bokk ngeen commencé. xam nga la moo tax amuñu problème mu kenn bokk ci élection yi ñun dañoo liggéey loo xam ne ak ku mën di bokk am nañu yàqee na ñun dañuy gagné te loolu ay preuve lañ ci am gis nga bi ñuy def liste local yi ak législative yi. parti Bok, est askan yeb ñu may dégg Nous, ci Nous ño xamné ne ñu ngi leen di dégg tay problème couvrir le territoire national deux candidats lolu tax d'ailleurs Pastef s'est retrouvé avec beaucoup de maires beaucoup de conseillers beaucoup de députés la moto, dans Yewwi c'est parce qu'on était les seuls à pouvoir couvrir tout le territoire national et la diaspora parce qu'on a un appareil

bu ñu euh, dañuy taxaw fexe ba Khalifa Karim bokk mhm. dialogue bi kañ la am xam nga dialogue bi yàggul mhm. lu jiitu dialogue bi ba ñu demee élection ak la ca am yëpp ba suñu liste national jàpp parce que ñëpp xam na ne liste nationale bu jàpp jàlloon mhm. Sonko jiitee euh, nekk tête de liste ñëpp xam na ne dañ doon am majorité parlementaire la ca xew ba liste ba jàllu allahu alam dañuy jàpp ne erreur humaine la Rassurez-moi, les que combine le Nous, dañu une erreur humaine j'ai été euh, très précis. Nous, mhm. dem malgré tout nous avons 82 députés. Nous avons jël députés. 82 députés. ñu chacun est libre. oui avons des Yewwi. Mhm. président Sonko comme vous nañ ko nous avons fait une ci Nous avons fait une proposition de loi bi modifiée. L29 L30 L57 nous jox ko groupe euh, parlementaire yewi mu dem mhm. février 2023 fin février mars début mars mars xam mhm. président pour ñu changer pour Khalifa Karim mais comment mais l'acte à la parole mais c'était porté par Guy Marus. Avant Guy Marus, il y lan une proposition de loi Modifiant les articles L29, L30, L57 du code électoral présenté par Baba Karmbay, député secrétaire. Abambaï, ah, Oui. xam nga lii lan la. Mhm. proposition de loi oui. pour te dire démarche inclusive Je Soleil, mon président groupe parlementaire. Mhm. dañu un projet bi Baba pour me porter ko mu dem yóbbu ko taxaw dama bëgg mu dem tere mu wax lan la ko wa taxaw tontu. lan lañ ko wax. lan moo tax ko déposé. proposition de loi bi et proposition de loi bi bu changer won L29 L30 L57 jeex na tàkk. ñëpp ñëppay qu'est-ce qui s'est passé. ah ñoom ñoo xam li tax buñ ko wona valider validé ñu préféré dem valider ko ci dialogue loolu sénégalais wara a laaj mais taxul ñu arrêté. est-ce que est-ce que fii ñu né woon. déposé wuñ ko de. Oui, mais est-ce que Khalat n'est que quand même, euh, euh, c'était joué quitte ou double Parce que si on peut déposer, est-ce qu'ils allaient avoir la majorité qui allait, voler, qui allait faire euh, passer cette loi La ah, majorité, nous pas voté cette fois-ci. Oui, mais... Oui, mais non, de faire correct. Mais nous, nous les que conséquence, oui, c'est encore une fois sénégalais yi dama bëgg parce que biñ dañu jël affaire bi jox Guy Sagna mhm. le 7 mars le 7 mars déposé 2022 Bataille. tey soo article yi nga xam ne lañ mhm. article 1 article 2 article 3 Madame L29 L30 L57 ñu wax ne nañu dindi notion électeur pour que mu nekk des élections euh, une élection inclusive moo bima len ma leen gisee wër ci télé yi di wax man dama jaxlé alors que toutes toutes ces actions wala euh, yewi askan wi la conférence des leaders le président Ousmane Sonko les députés le groupe parlementaire de yewi amul luñu doxul pour que li ñu déposer ko mais bañ ko déposer. nangu sax déjà ñu ñu faire passer la loi sax au vote wala quoi que ce soit ndekete boobu dialogue commencé na bu yàgg donc c'est pour ça ci lii ngeen coup, peut-être pour jàppoon que dañ un deal le président de la république. ah xam nga que moom dafa c'est très clair. ndax lañ waxanté won ba Je ko. xam nga li tay mu ngi door feñ lañ waxanté won ba teg ko buñu ko yobbu won ñu ne sax voté wuñ ko dinañ comprendre waye ñi taxoon ñu koy def parce que je rappelle que le président Ousmane Sonko reste toujours éligible. malgré li ñu jéem yépp yàlla dogal na ne éligible na parce que ñoom ñoo réer ci seeni biir ba mel ni kaset bu lëj comme ni ma koy waxee malgré tout ñu ne ñun di dinañ respecté affaire yi waaye la tax ñu dem si dialogue ne L29 L30 rocc L57 parce que jàpp na ne L57 mën na bloqué Sonko ndax L57 la muy wax la donc lii je pense que dafa leer nañ nañu respecté sénégalais yi Comme neex nga dem ak neex après nga sénégalais yi la waaye ñun dualité ak benn parti ci mim ñun dualité système la nekk te lépp action expliquer parce que 2014 ba cohérence la cohérence cohérence ak persévérance moo ñu

électorat bi nekk fii contre lu pouvoir ku yaakaar ne da nga cee téye dara ba mën nga koo jël yóbbaale ko ci magisal mooy xaw yow da ngay xaw ma nu ñu koy waaye da ngay sël mu jëmale ginnaaw comprendre li xew ñi ko def ñëpp bu ñu demee au contraire waxuma la duñ yóbbaale waaye dañuy dem sax fekk lañ fa fekk génn parce que ils vont créer des frustrés la ba moo tax ñun amuñ ci defar amuñ ci yàq de la même manière bi à ak euh, euh, comment dirais-je wàllu décider dem. non on a dit ñun demuñu waye ku neex na nga dem waye ñun demuñu parce que ñun dañu japp ne lool du dialogue. Li, moo gënoon a gaaw soxlawul amnistie soxlawul dara assemblée nationale na voter voté mu nekk élection yo xamné yu inclusive ñu xol naka la ñuy parrainage bi pour ñëpp mëna bokk parce que diñ ko doon 2019 lañ ko 2024. mais comme nous, dañoo préféré dem voter lu lo xamné day régler taillé sur mesure. régler ñaari cas. loolu député yi boudé, introduire saisine conseil constitutionnel. non question bu wuñu c'est-à-dire que saisine bi c'est très simple. dañu wax que assemblée nationale mënuñ ko fi tek pour askan wi yépp mhm. muy ñëw di voter loi pour ben wala ñaari nit. la loi doit être impersonnelle. Nous ñëpp xam nañ né loi bi ñu voté wala ñaari la preuve député ñaari député yi bok ci ñoom biñu joggé jël kàddu ba wax né loi bi dañ ko wara fexé ba ñëpp bok même Ousmane Sonko qu'est-ce qui s'est passé dañoo boudé génn salle bi ndekete ba ñu génnee président assemblée nationale suspend de séance ñu dem ñoom di réunion ci seen biir président groupe parlementaire Birame Soleil. Dugu ca dem di seeti président fekk que les réunion sans lui Qui wàllu Benno euh, kii astaghfirullah Benno Tahaou, mhm. taxaw présent président l'Assemblée nationale lan nationale. réunion ca retour ba lan député yu taxaw di jéem a réparer li député Umar Cissé waxoon dafa am lo xam ne ñi sénégalais quel kenn mënatu leen nag am nañ capacité de discernement ce qui s'est passé dans le dialogue n'est rien d'autre qu'un complot ourdi contre le président Ousmane Sonko. Et ça, c'est le complot du système. C'est ça la vérité. C'est le complot du système contre Ousmane Sonko et Pastef. Je l'assume pleinement. je ne personnalise pas la chose. Je parle de ce qui s'est passé. La preuve, ils ont fait passer une loi taillée sur mesure pour deux personnes mais le président Ousmane Sonko reste le candidat le plus éligible et il n'aura pas de problème de fiscale. fiscal. Parce qu'eux, ils doivent encore de, l'argent ah, contribuables sénégalais. Ce sont ah, son équipe fiscale, parce que... Mais Ousmane Sonko l'a parce que 15 ans, il a fait l'école de l'État. Maintenant. Dara état. Alors, il y a Ousmane Sonko, euh, d'ailleurs, beaucoup d'élections. Nous euh, gis que quand même dissoudre nañ parti le parti PASTEF les Patriotes Ousmane Sonko euh, on se rappelle encore euh, ni Karim Maïsawad, Wade ñu dit que PDS Karim plan A plan Z il n'a pas perdu ses droits civiques day bokk ci élections. Mhm. on a vu ce qui s'est passé est-ce que ragaloulen la même chose dal Ousmane Sonko est-ce qu'il prévoit prévoir aujourd'hui un plan B. du c'est quoi la différence. PDS PASTEF Karim du Sonko c'est quoi alors la différence. parce qu'ils font face au même euh, régime. ils font face aujourd'hui les motifs d'arrestation etc., encore une fois ne sont pas les mêmes Ben, nous y a une président Macky Sall le président Sonko par principe il a dit que d'accord ci créé, bi ñu utilisé. histoire jox na ko raison wala jox ko raison. dindi nañ ko d'ailleurs. Ya? voilà moo tax ku taxaw naan Sonko xeexalul woon diw xeexalul woon diw bëgguma yegg ci yenn kàddu yi mais loolu ku ragal yàlla mënu ko wax parce que ñëpp a gis vidéo yaa ngi fi sorti yaa fi lépp ngi fi. victoire balaa muy neex mooy nga compétir ak ñëpp ñun jàpp ne ay favori lañ. mais ñun am rus nañu dem ci élection yo xamantene ne ni ay wuyaa wuyaa rek ñoo fa nekk ñi leen di falaxe ñi daan dañu bëgg élection yu inclusive comment man sa morom duma. mais est-ce que yéen a ngi prévoir quand même quelqu'un d'autre lu tax prévoir quelqu'un d'autre ak suñ candidat éligible parce que peut-être il faut aller euh, ci ci ci ci domaine yëpp jéem a ce qui s'est passé. au moment que tu admets que tu as un blanc plan B ça veut dire que tu as échoué le président Ousmane Sonko reste éligible ce projet c'est lui le porte-étendard Nek ki nga xamné ne ci gëna def le don de soi pour la patrie président Sonko le président Sonko Sénégal président Sonko Afrique là. oui on a fait quand même comme def le don de soi te Europe ak États-Unis États-Unis buñu xamé buñu xalaatee bu baax xamné le président Sonko mo gën ci réew mi pour ñoom. Pourquoi Parce que Bami dans son livre Solution pour un Sénégal nouveau, en 2018, que Réunion France, nous avons intérêt à faire des pays